suratul eh, suratul falaq ñoom ñaar nag ñoo gën a siiwee ci muawasatayni lañ leen di tuddee yonantu mosta tëdd guddi lu dul ba jàng na ko raay ko ca yaramam wa bam demee ba mën tut ko raay ci yaramam da koy jàng tafli ko ca loxol Aïcha mu raayal ko ci yaramam wi lu tax ñi wàccee saar wi mufassiruuna yi wax nañ ca lu bari ñu ne yonantu bi lañ njabaroon yahud yi ñoo ko njabarlu jaare lañ njabar ga ci labid ibnu asam al yahudiyu su ko defee fekk benn xale bi yahudiyatu bu doon liggéey foofa la ne ko nañ ko fexe ba may ko ci kawaram mu indil ko peñe wala karaw ya tagoon ci peñe bi daan yonantu bi di peñewoo ñu ne njabar nañ ko def ko ci teen dem na ba teen ba soppeeku dem na ba léeg-léeg yonantu bi du ànd ak xelam yeneen yi ci haju wax yu bari la ca mu fassiruna ya wax waaye borom xam-xam yi d'accorduñ ci boo demee ci tafsiru maraq yi dafa weddi loola. weddi na ko ndax mu ne li ni nit ñi wax loola la leen di delloo bi ci njëkk mooy saar wi wii màkka la wàcc loolu mooy li gën a wér te njabar gii ngeen di wax nag mi ngi Madina kon loolu nu mën a saar yu wàcc màkka njabar ga xewee madinatul munawara loolu mënta mënta nekk ñaareel bi timit suñu dëggaloon njabar googu ci yonantu baak lañ ca wax kon fu ñuy teg li yàlla wax yonantu bi ne ko wallahu yasimuka min annaasi man yàlla ma lay musal ci mbooleem xayu mbindeef yi xayu mbindeef yëpp nag njabar ci la bokk kon isamatu googu anamu su fekkoon ne njabarkat dana mën a xam njabar ba mën a xam accès ci jëmm yonantu bi te yàlla nan wala yuflihu saahiru haythu ata ah loolu kon fu ngeen koy teg ñetteel bi bu ngeen ne ya yonent bi dañ koo njabar njabar ga am ak jeexital ca nañ koy waxe ñoom far dañuy xeyal xéeféer yi ci yonent bi mi xéeféer wax ne ndax yéen dangeen topp koo xam ne dañ koo njabar rek in yattabi'una illa rajulan mashuran kon nag dalaa il yooyu ak barahin yooyu nekk alqatia dafay tekki ne daal yonantu mënuñ koo njabar waaye nag njabar xaw aw xay la yàlla na ne na ko muslul ci xayu njabar muslul ci mbooleem xeeti xay wu bi andi wenn turu yàlla muslu ñetti yëf muslu na ci ah, bam ne a a'uudu bi rabbil falaq min sharri ma xalaqa ci ayu lépp lu yàlla bind loolu sa njabar dugg na ci ñaareel ba wo min chari xaasiqin isaa waqaba muslu na ci ayu marax bu demee ba dal ñetteel ba muslu na ci wo min chari nafaasaati fil uqadi ci ayu njabarkat ya di way tafli ca pas-pas ya su ko defee tamit ñeenteel ba mooy wa min chari xaasidin isaa hasada muslu na ci ayu ko xañaan bu demee ba feeñal xañaan ga bu ko feeñalul jërul muslu moom lay lor waaye bu ko feeñalee nag mën na laa andil pexe dëgg la ndëgg sërëx yàq sa der foo nara yëkkati ko mu wax fa lu lay daane kon kooka ngir ak xañaan su boobaa kon kooka muslul ca moom mooy yàlla yëpp xañaan a ci gën a métti moom amut bànneex mooy yàlla goo waxati gudul añaan bànneex am na ca yàlla nañu bànneex ba hump sàcc li muy bon bon ka koy def am na ca bànneex jëw li muy bon bon ka def am na ca bànneex fen li muy bon bon ka koy def am na ca bànneex njaalo li muy bon bon ko koy def am na ca bànneex naan sàngara li muy bon bon ko koy def am na ca bànneex waaye añaan moom amul bànneex safara wuy lakk sa xol la lakk sa jëf yi nga dee mu lakk sa jëmm ji moo tax yonentu daan wax ne iyaakum wal xasada fa innal xasada yaakulul xasanaat kama taakulu naarul xatab arab daan wax ne alxasoodu laa yasoodu du nekk sang mukk ndax dafay hittewoo xéewal gi yàlla def ci nit mu mu fexe mu dañ loola sang du ko def moo tax kii xañaan xamatut problème ak ki mu xañaane mais yàlla la xam ak problème dafa ne yow yàlla ni nga xàttee jubut ni nga jubut ni nga sëddalee jubut am yaxsuduna naas ala ma aataahum laa min fadli kenn ku ne li nga xam joxoo ko sa bopp yàlla la ko jox su boobaa kon nag ala kulli haal ku xañaan euh, coono dal na ki sa kaw te bokk na ci ummuhatu zunub yi bokk na ci ñetti bàkkaar yi njëkk a mooy yàlla bi njëkk a mooy yàlla mooy rëy moo dal iblis astakbarta am kunta min bu ñaareel bi mooy xiir moo dal suñu maam aadama bu ñetteel bi mooy xañaan moo dal qaabil ci haabil fa tawaat lahu nafsuhu qatla yi fa qatalahu fa asbaha min alxaasirin kon nag gis nga ko mi ngi wax ne moom yow yonantu bi muslul ci borom falaq falaq mooy xar mag ñi daan ko firee xaruk suba ndax guddi dafa mel ni ab nen bu muur la nen ba muuroon nag mooy suba ga bu ko bu ko xaree rek ñëpp nekk ci leer waaye nag falax ëpp na xaruk suba ah li yàlla denc ci asamaan ci ndox foofa dafa tëju kastewu bu ko yàlla wàccee loola falak la kar na asamaan si ndox génn gàncax gi yàlla denc ci suuf ah dañ ko kaste bu ko yàlla tojee gàncax ga génn jéb bi nit ña jariñoo ko kooku falak la naka noonu tamit doom aadama yi nekk seen biiru yaay dafa kastewu bu ko yàlla génnee ñi génn foofa falak la aw doj la mu ëmb ci ndox te tànk tojoo ko ndox ma du génn ak forage yeeg robinet yeeg yooyu yëpp falak la moo tax yàlla na faaliqul xabi wa nawa kon falaq gën naa gën naa xóot xarug fajar waaye boo ne xarug fajar rek nga nga nga tasbih ca yi ci tegu yëpp jël lëndëm muy la nëbbu woon la ca feeñe di xarug fajar ga leeral lépp euh, la nekk ca biir ruxumu yaay ya dana dugg la nëbbu ca doj dana gi dana dugg la nëbbu ca biir suufe ci gàncax yi dana dugg la nëbbu ca ndox ma ca niir ya dana dugg la nëbbu ca yeneen i place yooya yëpp tabu lii xottee ko mu xar ànd ak moom dana ca dugg sama borom ne bisimilahi sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi arahmaani buur bay xewalaa koon bépp mbindéef ci àdduna bi arahimi buur bay xéewal ku ko soob ci àllaaxira xul waxal yow yonantu bi ne auusu maa ngi muslu bi rabbi naasi maanaam bi rabbil falaq ci borom falaq te mooy yàlla mooy borom xarak suba bi xul auusu bi falaq lu may muslu min chari maa xalaqa ci hayu lépp lu bind lépp dugg wa shari xaasiqin ak ci xayu aji marax xayu marax ida waqaba bu dalee bu demee ba marax gi dal di waxtu tuddug yàlla jamu ko ca ñu baax ña di waxtu borom pexe yu bon nga ke seen pexe ya foofa nel maa ngi muslu yàlla wa min shari xaasidin ak xayu aji xañaan ida xasada bu feŋelee xañaanam nga kon gis nga ko tudd na benn turu yàlla muy bi rabbil falaq muslu ñeenti yëf muslu na ci xayu lépp lu yàlla bind xayu xayawaan yi xayu nabaat xayu jamaadaat xayu waruwaay yi lëndëm xayu bëccëg xayu wéet xayu wéttaliku xayu wax xayu noppi xayu gémmañu lépp yéenantu yàlla ne na ko muslu na ma wax ne maa ngi muslu ci loolu ak xayu lëndëm marax gi bu demee ba dal borom pexe yu bon yëpp jug du pexe ñu baax ñëpp dellu ci yàlla di tudd yàlla di jaamu nel maa ngi muslu yàlla ca waaye mu ne maa ngi muslu yàlla ca xayu jigéeni njabarkat ya di way tafli fi la di ca pas-pas ya neel maa ngi cay muslu yàlla door a muslu yàlla nag ca xayu ko añaan bu ko nëbbee jarul muslu ndax moom rek lay xalak ndax mat boo xamul lum lakk-lakk boppam safara kon bu xamul lum lakk rek lakk boppam waaye nag bu ko feeñalee bu ko feeñalee nag muy safara wulay lay lakk yow. moo tax mu ne qul waxal ne a'udhu danaa muslu bi rabbil falaq ci borom suba lu may muslu min sharri ma xalaqa ci xayu lépp lu bind ci xayawaan yi ci nabaat yi ci jamaadaat yi ci lu mën a doon wa min sharri ghasiqin ci ak xayu lëndëm idha waqaba bu dale wa min shari ghasiqin ci xayu mara ida waqaba bu dalee bu lëndëmee wa min shari nafazaati ak ci xayu jigéeni njabarkat ya di way tafli fil uqadi ca pas ya wa min shari hasidin ak xayu aji xañaan ida hasada bu demee ba feeñal xañaanam ga sóoratu naasi moo ca tegu mufassiruuna yëpp d'accord nañ ne makka la lu ñenn ña ne Madina mais Makka jee gën a wér su ko defee tamit nag juróomi aaya la ñaar fukki baat la ak ñett su ko defee nekk juróom-ñaar fukki xaraf ak ñeent fii moom yàlla tudd na fi ñetti turu yàlla di muslu ci menn mbir kese tudd na birabi naasi teg ca maliki naasi andi ilaahi naas yi kon andi na baatab ilaahu andi na baatab maliku andi na baatab rabbu lu muy muslu ci xayu maanaam waswaasil xannaas muy saytaane di iblis moo xam bu nit mbaa bu jinne alladi wasu fii suduuri naas min jinnati wa naas loolu rek lay muslu ñu ne nag falaq ñetti turu benn turu yàlla la andi muslu ci ñeenti yëf fii moom mu andi ñetti turu yàlla muslu ci menn mbir ñu ne ah kay boo demee ca falaq boo demee ca suratul falaq la mu doon muslu yëpp mbiru àdduna la moo tax mu indi benn turu yàlla muslu ci ñeenti yëf ndax min sharri maa xalaqa lépp mbiru àdduna la xayu àdduna la xalaqira xayaa bu xagee gufa wa min sharri xaasiqin isaa waqaba xayu àdduna la xalaqira xamul marax ba nga xam pexe marax ya wa min sharri nafaasaati fil xoqaat xayu jigéen ña di way tafli ca pas-pas ya di yu kenn xamut xeegul xalaqira aljana wa min sari hasidin xañaan tamit heggul foofa wa nasaxna ma fi suduri min xilin ixwanan waaye nag fii moom la muy muslu ba tax mu andi ñetti turu yàlla rabbu mu andi ko doyut maliki doyut ilaahu mu door a doy lu tax la muy muslu dafa jëm ci wàllu diine muy wàllu pas-pas te loola bu yàqu sa lépp yàqu moo tax kon boo jëlee sa àdduna jàppee ko benn loxo sa diine jàppee ko fukki loxo wala tansa nasibaka mina dunya la wax lu yàlla koy dafa ne bul fulal àdduna waaye bu ko fàtte nag na nga ko yóbbu xaale loo dégg ñu luy fàtte lu ñàkk solo la waaye nit kay du dem ne ma ngay génn di fàttee sol tuba yam njaag mbubbam ma kooka mooy diine waaye nit mën naa génn fàttee sol mbaxanaam ma mbaa mu fàttee sol dàllam ya mbaa mu fàttee takk weeram ya mbaa mu fàttee kaalohoo kaalaam nga noonu la àdduna war a mel ki sa ci sa ci sa sa jumtukaay kon wa butaxi fi ma aataaka llaahu daaral axira moom la jiital mais wala tansa nasibaka alquran dafa am balaaxa lu ñuy fàtte lu ñàkk solo la loolu la kenn amu waaye loo am solo maa ngi génn yow fàtte nga sab sa tubay ji kenn mësu koo dégg kenn mësu koo dégg kon nag àllaaxira mooy li am solo te diine moo ñu fay jox résultat bu baax moo jar a liggéeyal moo tax mu ne bisimilah sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi arrahmaani buur bay xewalaa kon bépp mbindéef ci àdduna bi arrahimi buur bay xewal ku ko soob ci àllaaxira qul waxal yow yonantu bi ne a'uuzu naa muslu bi rabbi naasi ci yàllaay ndaw ñi maliki naasi kay buura waxambaane yi ilaahi naasi kay yàllaay màgget ñi lumay muslu min sharil waswaasi ci xayu jax-jaxalaa kon ba ta mooy saytaane alxannaasi kay jattuhaa kon kon waswas la xannaas la mooy ngóor sa nga xam ne was fi su dana mu jax-jaxal fi su dóori naasi ci xol yaa moom mooy dënn yi xol yaa moom mooy dënn nit ñi minal jinnati laa la moom seytaane su jinne la wan naasi ak seytaane su nit yëpp a jara muslu jinne la njëkk a tudd door a tudd naasi kon tudd na ñett naasi ñett lawaay waaye benn bu ne bokkut ak sa fi borom firi rabbi naasi muy bi rabbi naasi maliki naasi ilaahi naasi waaye naasi yu njëkk ji ndaw ñi la ci namm naasi ñaareel ji waxambaane yi naasi gu mujj ji màgget ñi nit ku nekk dundam ay atuwaar la mais ñetti étape la nit ki dundu dundu ci sag ndaw dund ci sag waxambaane dund ci sag màgget kuy dund ci sag ndaw nekk xale fi nga juddoo ba ba ngay amee fukki at ak juróom-ñaar jëm juróom-ñett dugg ci ak mësoor foofa ku lay toppatoo ngay soxla mu rabbi ku lay yar di la xontu di la di di di di di yar sa xel mi di yar sa xol bi di yar sa jëmm gi di ko xéwénal moom rek ngay soxla yàlla ne man nag maay kooka kon may maay rabbi naasi kon yéen ndaw ye bu leen jàq maay seen borom danaa leen yar naa leen toppatoo ba seytaane mi li muy bon bon am doole mën a yàq danaa leen protéger ba du leen mënal dara mais nag ci ñi bokk ci inna baat lay si la kaalim sultaan min sharil waswaasi li am doole yéen ndaw yi man yàlla ngir protéger leen ko yéen nag na ngeen pare ngir taxaw ma protéger leen ko kon ndaw lu jël sa bopp dex ko yàlla rek yàlla musala ci min sharil was bu ko defee nag def la tarbiya boo xam ne bu amul morom lay doon boo xasee nekk nag bokk ca subaan ya nekk saab di waxambaane am kartan peñe sa karaw gi mu jëm ca kaw nga ngay sol weeri yi gannaaw te amoo bëti gannaaw di wàccee tuba yi di jaay doole yow foofa buur ngay soxla boo ne na boo ne nangam ak nangam rek mu dugal la ci kaso gi liif la ba nga ba nga kii moo tax foofa nag yàlla ne laa yow mi nekk waxambaane di jaay doole bu sa yaay waxee nga naan maire bi dafa bëri wax paa bi dafa compliqué kenn mënut ta dëgg yow yow buur moo man ci yow dara te boobaa man maay maliku maay buur bi nga xam ne maa rek réglé ba nga ne nemm su ko defee teg la ci yoon yar la ba nga ne cocc moo tax kon waxambaani buur rek man ci ñoom dara koo leen delloo ku buur rek muy musiba kooku mooy maliki ilaahi naas yi nag mooy mooy yàllaay màgget ñi ñi xas mage mën a mën tuñ dara dootuñ bëgg dara ci àdduna xiiw rek la ñuy bëgg jaamu yàlla rek dee dem aljana yàlla ne tamit pare na yéen màgget ñooña fu ngeen mënoon def seen ndaw yéen a xam pare na nekk di seen borom lépp lu a amoon ci lu baax ma dencal leen ko lu ngeen defoon ke safaan ba ci ay tërxis ma jéggal leen ko gatandu leen ci sama aljanna ji kon maay ilaahu naasi maay ilaahi naasi kon ñetti ñun loolu la ca nam ñetti turu yàlla la indi rabbi maliki na ilahi yëpp lu muy muslu seytaane ci bon ak saytaane mi nga xam ne yu seytaane saytaane waswaas la dafa nekk koo xam ne dafay jax-jaxal tabaarakallaahu sa xol bi nga xam ne sa dënn bee ko ëmbu saytaane gaaw ci jax-jaxal googa noona waaye noonu tamit la nekkee kannaas kon ñaar jikkoom la kannaas la waswaas la su boobaa nag ndaw li war naa hittewoo jublu ci boromam muslu ci boromam dimbali ko boromam ba man koo musal ci seytaane mii di xannaas seytaane mii di waswas nda xam na doole ci ku ne waaye ci ñaar la gën am doole mooy maanaam naas gi njëkk ji muy ndaw ñi ak maanaam maliki naas yi ñaareel ji muy waxambaane yi ndax li seytaane bëgg ñoo ko ko manal solo ay tiset di yooxu di tàccu doo julli tusubaar doo julli tàkkusaan jongoma ju la neex nga lëngoog xaalis bu la neex nga lekk ku la jaay doole nga nga nga jaay doole nga jaay ko sa bakkan loolu saytaane moom la soxla te loolu ndaw a ko man moo tax yàlla ne wa kazaalika ja'alnaa li kulli nabiyyin aduwwan shayaatina al insi wal jinni seytaane jinne mii nag mooy jax-jaxal léeg-léeg waaye boo tuddee yàlla mu daw jattu seytaane nit tamit dana jax-jaxal dana ñëw fekk laak sa xarit mu commencé yàquloo yow tee ngaa bàyyi xel ci diw ni ma ko gisee léegi ba muy wax fi yow doon gaaruwaale nam doon waxee nangam ak nangam soo ko ubbilee sa noppi nag mu gën a jattu di la gën di encouragé di gën di yàq sa xel mi soo ko jàjjee nag toroxal ko toppal fii man bëgguma ko may wax lu ñaaw su boobaa nag moom mu jàjjee ko daw moo tax nit ku nekk saa yu xëyee ba teel balaa wàcc buy wàcc la daan seytaan ne ko njëkkeexal mooy yàlla nga njëkkee ko mu jattu nag di dolli ko dolli ko yàgg moom ba ca bëccëg ba ba guddi mu ne la mujjeexal mooy yàlla jattu ca di la di la ci encouragé soo ko mujjeexee njëkkeexee woon ko mu lam doon wut am na ko waaye nag su fekkee dafa la jattu ne la njëkkeexal mooy yàlla nga jàjji ko topp yàlla mu jattu daw nga dem bay tëdd mu ne mu ah, mujjeexal mooy yàlla yow nga mujjee topp yàlla ci tudd kook say léemu ya mu daw ne xaw ma tey fu ma fanaan kon kannaas la dana jattu di la encouragé ci def lu bon dana jattu soo ko bañee topp ca lu bon la mu daw wan la gannaaw ku nit ka mën na loola saytaane su nit sa mën na loola saytaane su jinn sa mën na loola xam na ñoo xam ne buñ lay wax lu bon ci ku bon nga may leen seen nopp dañuy gën di ubbeeku rek nga dem ba topp leen ca loola mu indi la foo xam ne xamoo foo jëm ak ñoom waaye boo leen jàjjee toroxal leen su ko defee dootu leen gisati seytaane su nit lim gën a bañ mooy ko ko toroxal seytaane su jinne tamit lim gën a bañ mooy ko ko toroxal soo ko defee rek yàlla mayla jàmm waaye boo ko deful rek nag da ngay mujj am problème moo tax mu ne a'udhu danaa muslu bi rabbi naasi ci yàllaay ndaw yi maliki naasi kay buura waxambaane yi ilaahi naasi kay yàllaay màgget ñi lu may muslu min sharil waswaasi ci xayu jax-jaxalaa kon baa di iblis allazi ka nga xam ne alxannaasi kay jattuwaa kon ba allazi mooy ki nga xam ne yu waswisu dana mu jax-jaxal fii su duuri nasi ca xoli nit yaa moom mooy dënn ya minal jinnati laa la moom seytaan yu jinne la wal wan naasi ak seytaan yi nit jinnati jamoo ja mooy jinne yëpp dugg nañ boo bëggee benn nga ne jinn yu su ko defee tamit jin siw la buy naas nit ñëpp dugg nañ nga bëgg a wax maanaam kenn nit nga ne insiyu soo ko waxee noonu mi ngi mel ni nga ne boo ne jundu rek waaye boo ne yu muy benn soldaar kooku ismu jins la su ko defee nag kon moom léegi-léeg benn ba taaxa koy tegtale eh, muy ngeen nga ne saatun benn gàtt waaye léegi-léeg am na ci loo benn ba yaa moo koy tegtale nga ne insiyun ak jinniyun muy tekk benn ba boo ki taaga wala nga dindi yaaga su ko defee nag mu dellu di mbooloo ma yëpp ñoom ñëpp bokk ko su ko defee kon nag téere baangook ngoog tabaarakallaahu di alquran biñ doon jéem firi alquran kenn mënu koo firi waaye nag ab jaamab yàlla sañ na borom bu màgg bi day ni yàlla bula bindee leetar nga jéem a nab nabi ba xam la ca leetar ba ndax kenn ci ñun ku ne sa moromam nit bu la bindoon leetar benn da nga ko jàng soo ko mënut nga dem jàngalu ko kon tamit buur bu day ni yàlla bu ñu bindee ab leetar war nañ koo jéem a jàng suñ ko mënut ñu dem jàngalu ji ku ku ñu ko jàngal waaye leetar bi yàlla kenn du ne ko ñukku rek teg ko ci benn place te alquran leetar la bu ñu yàlla bind moo tax nag ñi si doon nab nabi ay xat ànd ci ak yéen tafsir bi li mu jël ci ay at mat na juróom-ñaari at yoo xamee ne nii ñu ngi ci doon nab nabi di ci ànd ak yéen ñii ñaan yàlla mi nga xam ne mooy rabbul isati wal jabaroot lépp luñ ci yàq yàlla nañu ko yàlla jéggal lépp luñ ci def mu ànd ak sawaab te kàrtanam nga moo ñu ko may yàlla nañu yàlla may ñi am kartan gum ñu kart ne ñi mën koo jëfee te ñu ci gis suñ bopp yàlla nangu suñu njaam nangu suñu jaamu ci nim toll bañ koo nangu ñun ti ñu ñu toll yàlla fegal ñu mbooleem musibaay àdduna yeeg yu àllaaxira yi ci barkeeb alquran nàddil ñu mbooleem xéewal yi ak wërsëg yi ci barkeeb alquran dox suñ dugganteeg lépp lu ñu ragal waaye tamit xëccal ñu lépp loo xam ne lu ñu xemem la yàlla musal ñu ci xayu lépp lu mu bind moo xam luy wax la luy waaxu la luy daagu la luy darngu la mbaa luy naaw la musal ñu ci xayu nelaw ak xayu xeew xayu wét xayu wéttaliku xayu wax xayu noppi musal ñu ci mbooleem xayu mbindeef yi remplacer ñu ko aw yiw woo xam ne xamul daytal yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla boola def yàlla nañu yàlla nangul ci nuñ toll liñ ci wax yëpp ci kaamil bi ñii ñaan ñi ko topp lépp luñ ci gis muy ak yàq nañ ko defaral defaral ñu ko ndax lañ ci jublu rek mooy ñi koy déglu man cee jariñu ñaan tamit mbooleem fu waay nekk di ko topp yàlla na yàlla jariñ la ci ni nga ko bëggee ngeen defal ñu ñaan fu ngeen mën di toll yaakaar nañ seeni ñaan in uridu ila al islaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu ilay unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu